ra jërëjëfate Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni nee na xaadim rasul ñu ñu gëm yeneen bee ko jox li mu am ba mu ko yóbbu sa boromam liñ ko fa tànnale ay mbiram alxamdulillahil karim si yile sët ak yile doom ku si sant Mbàkke du am bàkkaar Domba sëtu si càllal ak mamaaram mi doina terang doy sak teraanga doy ngir Ahmadul khadim moom mi si fe tey ku nëbb moo doonu lu waay di def deru neub lu meuna de xam ay man ku sal xooleel nan wululul tëleleel na ñépp san ñu welelee sant ko mbër mi ñépp ngi si mom si mom la yam amul feneen te kenn du ko am lenn la won lu am jox ko nabi mu ko am raw na gaay wees woon di am du soy te bu noonum kuus xuraan na romb leen jël ko bi jox len ni sandam ñun de sa yu nek dañu sot ay rangoñ ba am dala xol saa fu ñi gangé khassida sa kanam won nañ te te wati la si si ñi mbiri rek bala kenn di saay nga la gaaw la gaaw sa ngeen len rek mooñ teen na la tubana doon don bu gaaw bu autonome nyap ñëw marché si teew si sakanam amina ami yal na ko bram kun fayakun am si je seexul xadim mii nu dom te nekk mam amina ami yal na ko bram kun am si je seexul xadim mii nu dom te nekk mam ra Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni zahiran wa batinan